feebar bii di feebaru Laperoni nekk feebar ni daf leen dal maanaam dafay jàpp seen Ablaye Ndiaye muy dëng Ablaye Ndiaye bu dëng nag mooy ab Ablaye Ndiaye bu jàdd gos wala mu jàdd droite wala mu sëgg maanaam daal day sëgg ba bu bu sëyee sax day gaañ ko jigéen wala boog du mën a jóg normal maanaam day gaaw a peer day gaaw a dégonfler te du dëgër ndax tuyo bu dëng du am pression te ndoxu seyukaay bi itam du nekk qualité bu baax infection da koy waral ak góor guy fowe boppam di jël sa awra di ko bës ba sa ndoxu seyukaay génn di fowe sa bopp loolu moo tudd mballu lu dangereux la ak borom caleçon yu xat yi te seere ni ñàpp ci seen yaram loolu baaxul rawatina nag ñi daan def sport de combat ba ñu jël ci ko kon traitement bi koy fat mi ngi nii ay pommade la comme ni ngeen ko gisee univers bio bu Serigne Lamine Bara Fall nekk Dakar Guédiawaye arrêt du Balesque Serigne Bara bo leen ci ñëwee di ngeen ci jot tawfeex rek la dana yokk doole gi yokk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 mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génne ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa univers bio ku 93 sama mbokk yi dëkk Touba te soxla woon produit mauvaise haleine bi numéro téléphone bi nag mooy 76 283 98 69 Touba Jannatul Maxwa ci wetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni